ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baal di leen baal ñu ngi ak yéen fii ci bio naturel bu Wakaam di leen présenter produit yi nga xam ne mooy produit bio naturel yi yi nga xam ne moo jëm ci wàllu gel de bain yi ak euh, shampoing yi ak euh, pommade cheveux yi ak frotté yi ak huile yi mboolem xeeti huile yi nag am nañ ko am nañ huile moringa huile fenugrec huile baobab am nañ huile euh, ail am nañ huile jargaa am nañ booleem xeeti huile yi te huile yi ku ne xam na ne baax na ci karaw baax na ci yaram am nañ ay yi nga xam ne mooy wàllu produit yi jëm ci wàllu faiblesse sexuelle am nañ ko am nañ produit yi jëm ci wàllu hémorroïde am nañ ko ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu ballonnement de ventre am nañ ko ak li jëm ci wàllu diabète produit yi nag baax na efficace na waaye nag dañoo am gan gu rëy goo xam ne nag dafa gane si bio muy cuuraay lii lu mu cuuraay bi nag mooy lëmbe àddina bi àddina bi yëpp moom la ñuy coow jooni jooni la wala ma wax sax moo gën a gaaw jooni jooni ndax laal léegi la gis léegi soo amee gàllankoor ci sa yaram da koy dindi ba mu set ci nu mu gën a gaawee soo amee li nga xam ne mooy wàllu cat soo ko suurooyee ci instant bi koy dindi soo amee li nga xam ne mooy wàllu liggéey ci sa yaram ci instant bi la koy dindi soo amee li nga xam ne moom mooy wàllu euh, loxo bu bënn maanaa loo yor mu dem soo ko suurooyee ci même instant bi la koy dindi soo amee li nga xam ne moom mooy wàllu yaram buy diis ak ngay gént gént yi ñàng da koy dindi su fekkee da nga nekk kuy sëy nekk sa borom kër te du ngeen déggoo tout le temps ngeen di xuloo boo ko suurooyee dafay dindi ci saasi soo amee rab nag moom da koy dàq moom boo ko suurooyee ci instant bi la la rab bi di bàyyi moo xam fu ne faju nga ko fa wala fu ne dugg nga fa wala lu ne def nga ko mu të soo ko suurooyee daf lay bàyyi cuuraay la boo xam ne yàlla moo ci def barke nga xam ne ñu bëri ñu ngi fay ay junni yu bëri pour fay faj rab wala faru rab am na ñoo xam ne dañuy bëgg a sëy duñu mën a sëy parce que dañu am faru rab ku ñoo waxaale ak ñoom ngoro nga gis ngoro ko yàqu loolu daf koy dindi ci instant bi nga ko suuroo la koy dindee am nañ mbooleem li nga xam ne mooy jëm ci wàllu ay sirop ay épices yëpp am nañ ko Cheikh Omar Diop ak bio naturel ku ne xam na ko parce que grace à Cheikh Omar Diop moo tax Sénégal am lan mooy bionaturel naturel bio bi léegi àgg na ci dimension boo xam ne c'est international képp ku ko soxla fii ci Dakar incha allah mën nañ la ko livrer à livraison gratuite ci si sa kër incha allah di leen wax ne yéen ak bu yónnate leen incha allah ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah